Alors, je voulais juste partager euh, un avis personnel. Hein. C est, ce n'est que mon avis. Et loin de moi euh, le fait de, de, vous faire la morale. Mais vous savez, ces temps-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est yu bari ñu ngi dem di tas xalé yu ndaw di di tas c'est yu Defante, c'est yu internet wané Déjà, man je pense que c'est hmm. du defante il faut que xalé yi di bàyyi buñ len takké ñu nekk deuxième troisième ak yoyu ñeu rek commencer bëgg defanteeg seen ay aaw c'est très petit c'est pas c'est pas chic c'est pas classe ce n'est pas élégant ce n'est certainement pas gentil ah dara lu rafet amu fa da ngay ñeu foo ne yaay bomb di nga bomb pour combien de temps parce que c'est du benn fan du ñaari fan di bees bees bala après bonjour la réalité la routine va s'installer léegi yow bu nekkee da nga ñëw pour sëy rek nga bëgg defante wala ñu la siy poussé ba nga fàttali l'essentiel tu seras perdant te dañuy may góor ñi loo xamante ni vraiment waruñu on doit arrêter ñun jigéen ñi de se faire du mal volontairement

am conseil bu may joxe ëpp ma leen xel te euh, peut-être sax war naa am man loo xam ne moom laa gën a mën a lijjanti ci que leneen mais c'est un avis comme je l'ai dit tantôt te bëgg naa ñu bari bàyyi ci xel mooy tey ki la takk xam nga noo war a defante nooy sëye sëy bu rafet nooy indee jàmm ci biir kër gi parce que jàmm boo leen ko amul seen jëkkër ñu ko leen fay def yéen ñaar dem uti leneen góor ñi comme yàlla may na leen ñeent loolu rek lañuy respecté ci l'islam mais loolu comme du débat bi bàyyi leen xel ni seen aawa yi wala seen ñaareel yi duñu seen ay noon da ngeen bokk loo xam ne neexut a bokk waaye ki ñu sàkk binduñu moo ko teg ci kaw taabal bi ne nii lay demee ci ku ko mën kon buñ ko mënee ñu def ko faw nga muñ ba pare xool naka ngay <coughs> gérer sa àddina mais ñun Sénégal chaque jour rek mbiram wujjee mën naa ko waa ji man la bëgg waa ji maa koy daaneel waa ji man la nopp te bu la takkee tam du tey waa ji toog mais il faut à un moment donné que ñu mën a réfléchir que ñu mën a réfléchir te góor ñi kaay ma wax leen benn affaire de seen aaw ki nga xam ne moom lañ njëkk a takk dañ koy teg foo xamante ni bu ma tey aaw duñ fa teg feneen te luñ leen di wax ay yaay sama xarita dañuy fen du dëgg fu ñu wéet mu neex ñu wax lo xamante yow do ko yek kon mesdames de grâce géré len sen sey ngeen xamni sen seen ko duñ dara du yag ba ngeen jël waji muy ay ci yeen bay sen aawa lolu goor bu ko def sax wala sax mu bay sen ñaareel mais goor bu ko def nga and ak sa sago ala kuli al, ding ko fay di di bamel day am day kon ak baaxul mais li may wax mooy xale yu jigéen yi léegi sax yi nga gis yëpp ñi nga xam ne par exemple bu njëkk ba euh, ñi siiw ñi ñu xam leen ñu liggéey ci média wala woykat wala et cetera ngay gis seen sëy sax ñu médiatisé ko mais léegi gis sëy ku jug ji sëy rek woo presse yëpp bu ñu ñëw jël la nga wax aayul sax de parce que comme li ma wax rek ku nekk yaa xool li la def li la neex nga def ko mais ñi nga xamante ni dañ koy def ngir seen aw gis seen jongoma Sénégal gis seen jongoma léegi buñ ko ñëpp gisee ñu wax ci catu leen léegi yéen so wat lan mooy lan mooy lan mooy finalité bi <coughs> ñu ci bëri da ngay toog ñu dugg di sagu sëy ba naqari bay bëgg a dee ndax cat da lay jiitu mauvais sëy dafa am kon ñi nga xam ne dañuy jóg di ko def am nañ ci droit kenn du leen ko aaye mais nañ bàyyi xel ni au delà de sa aawa wala sa ñaareel gis sa jongoma gis sa sañ si et cetera amul benn sens ay kayit kese nañ bari ndax Sénégal bëggatuñ gis kenn ci jàmm ku sëy ku ne ñu ngi jéem a xool luñ la yàqee waaye heureusement ba borom bët bu mag bi lu la waaye mën a yàq te yàlla nangul nga yàqu doo yàqu mais bët bu bon am na kon sàmm leen seen sëy yi sàmm seen jëkkër yi te ngeen xam ni ñi ngeen fekk si duñ seen ay duñ ay wujju lañu waaye duñ seen ay noon noon bi mooy ala kulli àll di ngeen wujje bu kenn ki bu xolam attanee xayrun bu xolam attanul xayrun yow defal sa wàccuwaay nga def sa wareef mais bul ñëw bëgg defante te buñ la takkee xamoo biir kër gi nu mel. ma ñi nag laa bëgg dénk ñaari baat mooy gis ngeen euh, boo leen jëlee soxna il faut ngeen mettre les points sur les i. il faut mu xam ni sëy yàlla respect te yéen a war a njëkk a respecté seen aawa yi yéen yéen a war a gën a respecté seen jabar yi a leen war a sagal jox leen seen cër te xale jigéen yi gis ngeen aawa yi elles en ont vu de toutes les couleurs elles ont vu des vertes et des pas mûres tremblement de terre secousse du leen yëngal bàyyi leen ci xel te ngeen muus def pat ak organisé bu leen kenn jay bu leen xarit jay bu leen njëkkee boo xamante ne juboowul ak jabaram def leen arme de guerre ngeen xoggali ko foo ne yéen ci nekk boo leen ko defee da di réer te ñi nga xam ne seen jëkkër ñoom la takk il faut ngeen daal parce que yéen si ñëw leen a monogamie ay jullit ngeen ngeen xam ne kii war na mën a takk bu leen noonu xale bu jigéen bi bàyyi leen tamit bu nit ñu waxante dëgg bu seen jëkk a takkee rek ngeen foo ne wujj bi sama wujj bi sama wujj bi non neexul ci xol de man ëllëg xaw ma lu may am mais damay wax te yàlla tax neexul ci xol mais xale yi jigéen yi defuñu dara ndax seen jëkkër ñoo jóg dox leen gis leen bëgg leen takk leen kon yéen tamit bu leen may seen wujju xale yi dañoo bët léegi koo ci xool balaa ngaa xef sax mu luqi la kon faites attention ngeen ngeen xam seen place xam yéenay kan xam nga ngeen toog jël seen mal en patience gérer li ngeen di gérer te naan ndox bu sedd yàlla. voilà c'était un petit sujet boo xamante ni dama bëggoon ñu évoquer ko partager ko j'attends vos commentaires euh, dinaa jël yi ma mën a jël ma dugal ko et puis boo leen amee tamit yeneen sujet yu ñu war a mën a waxtaanee surtout nag luy jëmale jigéen kanam ce serait super bien qu'on puisse faire un live sur TikTok wala Facebook on va essayer de voir le maximum de commentaires fan ngeen bëggee live bi am rek ak euh, yenn intervenant yoo xam ne mën nañ ci participer n'hésitez pas hein, vous m'envoyez vos numéros téléphone tout ça si vous avez envie de participer ñu organiser waat beneen live d'ici là portez-vous bien yàlla na yàlla defal euh, ñëpp jàmm waxtaan bu ndaw kese la woon du di ñaanal ñëpp jàmm nag bu baax a baax a baax a baax yàlla ñu yàlla jéggal nangul ñu suñu koor defal ñu jàmm defal ñu salaam laabal suñu xol macha allah.

motax merci beaucoup ci sa commentaire c'est très très important kon na jigéen ñi tamit nañ muus baña a dugg ci piège goor ñi paré goor góor ñi am yermandé xamné sa kër bu tassé rek yow dootoo amati té boy booy defanteeg say jaba day dem ba say dom écoutez bien duñu mëna mën